juróom ñaari waxtu ci télévision Futur Média dal leen jàmm ci xibaaru marax yi ñu doore ko ci coow li aju ci ni ñuy séddale ndox mi fii ci Sénégal te ñu si doon faral di tudd Suez ak itam waa SDE ak sax nguuru Sénégal loole nag am leneen lu ci yokk li ci nag nag mooy forum social mondial ne nag danañ yóbbu fa mbaxana doone benn këru liggéeykaay bii du Suez tax dañu jàpp ne dañ doon jéem a ger ki fi nekkoon. ministre de l'hydraulique Mansour fay nekk itam maire Saint-Louis ndaxte rek dafa am ay xeetu jëfin yoo xam ne ñoom jotuñu ko rafetlu ci boobu la dossier ba tax ñu woowoon tey taskatu xibaar yi ngir àddu jëmale ci boobule fànn Habib te woon na fa tey àndoon ceek Mar doon donn loo xamante nit taamu nañ ko tissu super 100 yi filafili yi ñuy ñëw fii ci Sénégal moo di tendance atum ren gi léegi nit ñi dañ koy ñëw ay prédicors yoo xam ne coupe veste yoo xam ne léegi boo ko solee rek dangay nekk en l'aise dafay mel ni yëri tubaab nga sol quoi du la sonal bu njëkk dañ ko doon coupe muy yaatu nit ñi sawaruñ ci mais léegi que nit ñëpp ay yére tubaab rek la ñuy sol moom la ñuy demee ci mariage moom la ñuy demee ci ajjuma même moom la ñuy demee ci programme yëpp parce que dafa xew quoi. ndax man bi ma seetloo korite ren bi daanaka basin doxul noonu ñi fi ñëw ñëpp fil à fil la ñuy jënd ak super cent. tissu yi la bëri na lool ci biir marché bi li ni mel lañ nemmeeku ci Colobane boutique bi ay tissu lay jaay. ñuy jégaloo ci boobule élément méngoowul ak euh, bi ñu laajoon ci fàttali rek coow li nga xam ne moo judd woon te ni ñuy séddale ndox mi fii ci suñu réew ñu tuddoon ci nag SDE ak waa Suez ak euh, sax nguuru Sénégal ñoo nag waa forum social nag euh, yëkkati woon nañ ci kaddu ba tax rek ñu doon taseek ñi nga xam ne ñooy journaliste yi tey ngir addu jëmale ci li ni mel. dinañ ci ñëwaat euh, laata xibaar yi di euh, yemb dinañ wax ci leneen wa aju itam ci li nga xamante ne rek mooy Ascension ñeent ñeent fukki fan gannaaw rek bu ñu màggalee fête Pâques jullit yi wala sax jullitu chrétien yi amaloon ci tey ay ay xumbite ay ñaan fàttali tamit li nga xam ne mooy solos boobu la bés jullit yi wala sax euh, yooyu les chrétiens ñenn ci ñoom demoon nañ foofee ca paroisse Notre-Dame bu Ange ca Wokam rek ngir ñëwaat ci mees boobu Kumba Amad Lo na fa tey àndoon ceeg uh, Thierno Laurent Mendy ñi la ñëw ci mbooloo mu takku ngir teewee mees bu Ascension Ascension ñu koy màggal ñeent fukki fan gannaaw feetu Pâques di bës bu am solo ci sunu mbokk chrétien yi. demul dem pour dem nax saay dafa dem parce que dafa am la nga xam ne daf ñu ko diggoon dafa war a dem préparer ñu place ci wetu baay bi boroom kàttan bu bés bu dellu seen nag te parce que mun naa ne religion yu bare en tout cas ñu ngi xalaat loolu en cas la région chrétienne moom ñu ngi xalaat ne Jésus dina dellu si bu dellu see ça avec avec gloire te bés bu ñëw ñu ñëpp ñun ñaa ngi xam ñun ñooy taalibeem dañuy dem à sa rencontre ñi ñi ñu jiitu ci ci ci àllaaxira ak ñi nga xam dañuy dund ñëpp ñooy àndandoo à sa rencontre dans le ciel parce que dañoo war a dem ci ci ci ci kër baay bi. bu ñu sukkandikoo ci fidèle yi bés bi mbégte rek li firndeel. mbégte la mbégte la pour bépp chrétien parce que daf ñu dafa am lu mu ñu dégg lu mu ñu dégg maanaam mooy xel mu sell mi xel mu sell mi mooy koo xamante ne moom mooy nekk ak ñun mooy nekk ak ñun fépp fu nekk moom moo ñuy dooleel. kii tax ñiy màggal jour bi mooy nit ku màgg koo xamante ne ku jar a màggal mooy yàlla suñu borom. mees bile doon itam ab occasion. ngir amal ay ñaan jëmale ko ci askanu Sénégal. tey jii comme yéen moom Jésus dafay dafay yéeg ci kaw mu doon loo xamante ne dañu war a ñaan yi nga xamante ne mooy xel mu sell mi nga xamante ne moom la ñu yónnee pour mu wàcc si si ñun. chaque jour chaque jour c'est une journée de prière mais aujourd'hui nous allons faire un effort de plus. bés bile di màggal yéegu Yeesu Krista ci kaw asamaan di yëgle itam ñëw xel mu sell mi fukki fan après yamook bésu Pentecôte. Kumba Amad Lo ñu wax ci beneen xew-xewu diine laylatul xadra tey ci guddi nag ñenn ci jullit yi tamit dinañ ko màggal bokk na ci euh, murit yi foofee ca Masalikul Jinaan fas nañ yéen amal fay xumbite wala ay ñaan yu am solo ci loolu sax moo taxoon ñenn ci suñuy ndaw doxantu fa xool tolluwaay ñu jàpp ne rek lépp yem na bay guddi gi noom fas nañ ko amal euh, ci ay anam yu mucc ayib euh, Cheikh Diop doxantu woon na fa tey àndoon Thierno Laurent Mendy liggéey Serigne Touba moo ñu tax a jóg ndax sëñ bi dañoo defal lu ñu kenn defalut te dafa mën ci ñun lu kenn mënul si ñun. ñu li di wéy ci ndigalu sëriñ bi saa su nekk taalibe murid yi li di waajal bu baax guddik laylatul xadr ñu nekk fii ci Masalikul Jinaan fii li bépp matuwaay boo xamante nii rek war na ci wàll wi dal nañ ko ci jël. lépp loo xamante ni wàllu taxawaay la ci wàllu matériel wàllu financement gis ngeen bâche bi ni mu mel waajal nañ ko ci wàllu xéewal yi dara manqué wul kon léegi daal li ñuy xaar mooy taalibe yi ak jullit yi ñëw ñu ànd kook ñoom ba mu jeex. ci loolu ana naka la ñuy jàppi guddik leenatul xadr soo umee dimanche guddik laylatul xadr ñaar fukki fan yaak juróom-ñaar la guddik àjjuma yi lay dajeel soo umee altine guddik laylatul xadr fukki fan yaak juróom-ñeent la guddik àjjuma lay dajeel. soo umee samedi guddig leetul xadar ñaar fukki fan ak benn lay doon guddi ajuma lay dajeel soo umee euh, euh, euh, altine mu nekk fukki fan yaak juróom-ñeent guddig ajuma lay dajeel soo umee talaata comme tey fukki fan ya ak juróom ñaar fukki fan yi ak juróom lay dajeel guddi ñaar fukki fan ak juróom di guddi alxames guddi gile gën ay junne junni guddi ba tax ñu si sàkku sant ko ñaan ko jéggalu ko tudd ko jullit bu ne war nga ko def rawatina nag ci guddi leetul xadar leetul xadar day loo xamante ni ñun jullit yëpp ñoo ko bokk ndax ci la alxuraan wàcc inna anzalnaahu fii laylatul xadri kon guddi googu ci la alxuraan wàcc wax nañ ni euh, laylatul xadri xayru min alfi shahri moo gën junni weer junni weer 83 ans 4 mois ku ko am ci xéewal war ngaa xam ne loolu tawféex la. mu nekk guddi gi gën ci weer wu sell wi di shahru Ramadan. bi la xew-xew ñu koy amal fépp ci àdduna wërngal këpp ñi nga xam ne ñoom ñoo di murit yi nag ni ki tey la koy màggal waaye bés bile saa yu jotee xel yi dem ci soxna may mënatul Bintu Xadim Mbàkke di caatum Cheikh Ahmadou Bamba Xadimul Rasul ci jëf yu baax yi nga xam ne man ki ci daan def. Cheikh Diop yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp ñu wax ci leneen ci coow lu judd woon ci ni ñu seddalee ndox mi fii ci réew mi waxoon nañ ko ci ndorteel. loolu nag juróon coow diggante waa Suez SDE ñenn ci nguuru Sénégal ba tax na waa forum social mondial ñu ne dinañ yóbbu fa mbaxana doone benn ki nga xam ne rek euh, moo nekkoon ministre de l'hydraulique euh, jamono ji mu nekk maire euh, bu Saint-Louis di Mansour fay ndax dañu jàpp ne rek waa Suez dañ ko doon jéem a ger ci boobule appel d'offre ba tax waa forum social mondial amaloon nañ tey ab conférence de presse ngir àdduwaat ci boobu boobule dossier ci teewaayu Abi Faye ak coowal ndax fii ci Sénégal jeexagul ba léegi ñii di waa Forum social mondial ñoom dugal nañ ci seen loxo ne sax daañu porter plainte ñii di waa Suez gannaaw ba nga xamante ne ñoom ñii lañ joxagum lii di njënd ak njaay ak ndox mi fii ci mim réew. léegi plainte bi pare na ñu ngi koy corriger ci suñuy loxoy avocat pôlu avocat yi ñii ay français la ñii ay sénégalais ñii ay belge ñii ay italien ak espagnol ñoom ñooy dem déposer plainte boobu. Euh, mën na am sax fi lëndi lundi ñu euh, am papier dépôt bi. coordonnateur bi Mignane Diouf jàpp ne lii xeltee na ci te itam la ko lënk moo di. am na ger gi nekk ci marché googu at bi ñu lancé appel d'offre bi at boobu ci la Suez may ay oto yuy buub mbalit koo xamante ni mu ngi ci département ministériel bi. ñi toppatoo ndox mi muy ministre bi ci boppam nekk maire Saint-Louis. ñoom ñu ne lii duñu ko nangu benn yoon ndax itam bu dee gënal dana am sax entreprise bi jëriñ biir réew mi moom lañ fa seenee àndat waaye ñoom ba léegi dañoo tëddee njaxanaay. Veolia SDE Suez dafa mel ni Veolia gën na ndax wóolootul ñi nga xamante ni ñoo ŋànk mbir mi SDE jàpp itam ne mënumaa doon ki nga xamante ni moom lañ ne. moo gën a yombale li muy jaayee ndox mi ak li mu koy raccordé dañoo bëgg processus bi transparent Mamadou miñaan juuf di gën a xamle ni ñoom ñi ngi gën di def seen i gëstu ngir mbir mi gën a leer ci diggante Suez ak l'état bu Sénégal ndax anam bañ leen joxe marché ndox gi doon na loo xamante ni itam tey na aw xel naam itam ñoom bind nañ ab bataaxal jëmale directeur bu Suez ba léegi France daan xëddéem léegi nag la cay pexe moo di dem fa mbaxana doone benn. Abi Faye yu jóge ci ndox mi wax ci gone yi nga xam ne foo tourné ci biir Ndakaaru wala ci biir réew mi sax gis leen ñooñu ñuy faral di woowe ay taalibe nag mel ni kilifa yi gën fësal seen taxawaay euh, euh, préfet bu ndakaar euh, Plateau àndoog ay ñi nga xam ne rek ay jàngalekatu daara lañ fas yéene dugal seen loxo rek ngir xeex boobulee jëfin ñoom nag li ñuy sàkku rek ci kilifa yi ñu doole leen ñi nga xam ne ñooy sëriñ daara yi tamit ñoo ngi sàkku ci kilifa yi waajur yi ñu gën leen jàppale ci seen liggéey ngir ñu mën a xeex boobule euh, mbir Aminata Mbaare Sow teewoon seen ndaje tey bi àndoon ceeg Mohamed Dieng ay taalibe yu ñuy bundu walla wala sax ñu leen di faat bëri na luñ koy nemmeekoo fii ci Sénégal. ñu dee ci benn fan ci benn néeg ci benn bés ci benn waxtu te ba ñuy dee sëñ dara bi nekku fa. muy donc sëñ dara waral ndaje mi ñu daal di koy ubbi dañ fi fas yéene formé ay sëriñ daara ci lépp lu jëm ci protection de l'enfance. mooy euh, capacité ñoŋal xam-xamu sëriñu daara yi ci wàllu protection droit xale yi. te ku nekk xam na tey képp ku njaboot yaa ngi tiit. dañuy indi euh, droit yi nga xam ni moom lañ euh, waa adduna bi teg di ko waxtaane nga xam ne moo fi nekk ñu ratifié ko mu jaar Nations Unies waaye dañoo teg droit islamique yi yi nga xam ne tey moom la islam wax yooyu dañ ko teg. ñoom ñu ñaawlu tamit yenn way wayjur yi nga xam ni dañu yóbbu seen xale ci daara yi fàtte leen foofu. ñu jàpp ni sax fi mu toll ni ñaan nañu ñu renforcer cadre réglementaire bi bu ñu jógee ci loolu dañu amal benn opération bu yaa jële xale yi di taxawal ci mbedd mi boole ci taalibe yi le wax ci mbiru politique ak euh, waxtaan bi nga xam ne rek njiitu réew mi Macky Sall sàkkoon nag ci ñëpp ñi ngànk réew mi rawatina ñu yëngu ci wàllu politique ñooñu nag keroog ca pale ba am na ñu fa teewoon feete ci kuje gi ñeneen ñi moom lànk seen duñ fa teew. ba tax na rek njiital Pastef Ousmane sonk ne moom mënul comprendre ñi nga xam ne rek dañu féete ci kuje gi. mën a tewe yooyu la waxtaan mel ni nag ñu koy tontu bokk na ci Thierno Bocoum ne nag ku mu neex mën nga fa teew ndaxte ku ne daal yaa moom sa bopp kii di docteur Cheikh Tidiane Dieye bu avenir Sénégal moo ñu doy ne rek kàddu yooyu moom comprendre ci dara Alhassane Ba ci njàngat bi ànd a ceeg Mamadou Sow Dieng bi ñu wax grâce sañ-sañ la boo xam ni charte réew mi ñuy wax constitution moo ko jox président de la république ci article 47 li ñu wax grâce nag moo di président sañ na baale nit koo xam ni dañ ko tëj te fekk bañ koy daan daan bi sax na fekk daan bi saxul président de la république mënul joxe grâce léegi nag ca jamono ci ñu ñëwaat rek euh, ci élément muy ab euh, rëx-rëx aju ci wàllu élément boobu ñu doon wax ci wàllu politique ak euh, kàddu yi nga xam ne rek kii di njiital Pastef Ousmane Sonko yëkkati nañ ko gannaaw rek bu amoon ci yenn ci kuje gi demoon wuyu ji njiit réew mi Macky saal ci waxtaan bi ñu sumb ngir fexe ba xalaat yi doon benn loole nag mu ne mënul nangu ñan ci kuje gi dem fekk ji boobu lay waxtaan Thierno Bocoum mel ni ki koy tontu. ne nag ku mu neex mën nga fa dem xool li nga xam ne moom la ñuy waxtaane keneen ku ci àddu di docteur Cheikh Dieye ci njàngat bi Alassane Ba Mohamed Dieng ab opposition bi xaajaloo la ñu gis ginnaaw wooteeb dialogue national ca palais de la république ba tax na sax moom Ousmane Sonko janoom ak taskatu xabaar yi daanaka dal la def ñii nga xamante ni ñoo fare ci kujj gi dem wuy si nag wooteeb njiitu réew mi Macky Sall ci palais de la République ab incohérence la gis ci seen doxalin. ñu wuy ji seen gis-gis la seen seen droit la xam nga mënoo ko ko teree nit def ko mais ñun li ñuy questionner rek mooy li ñuy laaj laaj ko ñoom waa opposition boobu ak ñeneen mooy question de cohérence parce que bu fekkee bi. gisuma ko wala baaxul wala nangam da ngay am cohérence sa position méngoo ak la nga waxoon ñun nag ñun dañu jàpp ni opposition xëy na naam Sénégal ni politique tëddee mënul ñëpp ñu bokk ni ñooy bokk lu ñuy defandoo parce que opposition musul mel noonu au Sénégal nii même ñi nekk au pouvoir mais ñun li ñu jàpp mooy idéal bi nga xam ne mooy jàpp ni opposition noonu la war a mel mooy opposé wu mooy toog. bañ a nekk ci biir pouvoir bañ a ànd ak pouvoir ci li muy def forcément bu fekkee nag am na lu baax loo xam ne askan wi yëpp nangu nañu ni lii décision la bu baax bu ñu war a dëgëral baax nañu ñu ni lii baax na continuer leen ko. ab xaajaloo bu gën di fës wante moom njiitalu mouvement Agir jàpp ni rek ak li ci mënti am nañuy fexe ba bañ a jaawale li nga xamante ni moo wuutale doxalinu pouvoir ak doxalinu. opposition. man duma def commentaire si euh, leader politique lu mu wax wala parti politique lu mu wax parce que ku si ne am nga liberté xool situation bi am jàngat boo si def nga joxe sa point de vue mais li ma wax rek mu leer mooy que ne am na mbëbët yoo xam ne ñu ñëpp am nañ ko war na leer war nañ si avancé pour démocratie pour état de droit pour jafe-jafe askan bi waaye tey ma waxaat la ko li am solo. mooy ñu bañ a compromettre ligne de démarcation bu am entre opposition ak pouvoir ñuy opposé nañuy continuer di opposé ñu nekk ci pouvoir nañu nekk ci pouvoir waaye lu ñëpp moom nañ ko waxtaanee ba trouver ci solution parce que loolu mooy njëriñu askan wi. ci tontu bi ñu fas yéene indi ci dialogue national bi nga xam ne daanaka door nañ ko moom docteur Cheikh Tidiane Dièye ak ay ñooñam fas yéene nag lancé ci fan yi ñu dëgmal li ñuy duppee ñoom dialogue. avec le peuple. Alhassane Ba dañuy desa ak docteur Cheikh Tidiane Dieye dafa jàpp ne bu ñu bëggoon waxtaan bi gën a yomb sax wala mu am résultat yoo xam ne ñëpp ci gis seen bopp dañuy sukkandiku ci li nga xam ne moom lañ jële woon ci assise nationale yi ñu amaloon ci atum 2008 jàpp 2009 ak itam li nga xam ne mooy liggéeyu commission nationale de réforme des institutions bu ko defee rek waxtaan bi dina gën a yomb. te ñi ci yëngu ñëpp dinañ ci mën a def ay jéego gis ci seen bopp ñu teewlooy kàddoom ci micro Alassane bu woote woon tey nii am nañ fi assise nationale bu am charte de gouvernance démocratique boo xam ne ñoom ñëpp signé nañ ko mu ni am nañ fi commission de réforme des institutions boo xam ne nangu naa ne liggéey bi baax na damay bëgg woo nit ñi ña fa nekkoon ak ñeneen ña ca nekkul woon te gëm ni lu baax la ñu ñëw toog nag càmbar ko xool liñ ci jot a def jéego yu baax yiñ ci def ñu dëgëral ko li nga xam ne jotuñu ko woon def ñu doxal ko li ñuy xaar tey ci président Macky Sall ak ñi ànd ak moom mooy jëf pas xalaataat xalaataat bi def nañ ko document yaa ngi seen table li ñuy wax ci foncier ci dialogue bi mais am na commission bu mu tegoon ci wàllu suuf commission bi jox na ko rapport rapport baa ngi ci biir tiroiram bu génnewoon woon ko du soxla di si dialogué waat ci éducation def na assise de l' éducation ay conclusion ngi ci biir rapport am donc ñun dañu jàpp ni temps bi ñuy perdre tey di wax ci seen biir mu di la même système le même paradigme les mêmes acteurs depuis cinquante ans ñuy wax la même chose loolu monologue la du dialogue monologue mooy wax ak sa bopp. jaloog mooy ñu dem ci askan wi Sénégal ñun moo tax ñu ni dialogue bu Macky Sall bi duñ ci dem waaye ci semaine yi di ñëw dinañu dem fépp ci Sénégal. ñu wax euh, ci leneen wala sax euh, ci li ñu duppee grâce wala ñenn ñi nga xam ne dañu ñaan njégal rek ci ki nga xam ne mooy xalifa Ababacar Sall kii nag xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu droit pénal turam di Ndiak Fall moom dafa gis ne rek li ñu duppee rabat day tax boobu grâce xaw a am ay rëx-rëx ba tax na rek faw ñu di liggéey bi yemb suñu bëggee rek jiitu réew mi doxalee ni ni mel ñu teewlu ay kàddum ci micro Mamadou Lamine Ndiaye. li ñu wax grâce. sañ-sañ la boo xam ni charte réew mi ñuy wax constitution moo ko jox président de la république ci article 47 li ñu wax grâce nag moo di président sañ na baale nit koo xam ni dañ ko tëj te fekk bañ koy daan daan bi sax na fekk daan bi saxul président de la république mënul joxe grâce léegi nag ca jamono ci affaire xalifa Sall dem nañ ci doxalinu yoon ba yegg si ci ñuy wax ci li ñuy wax rabat d'arrêt rabat d'arrêt buñ ko dugalee galgal la boo xam ni buñ ko dugalee fekk sottiwul day mel ni daan bañ ko daanoon saxagul euh, de telle sorte que ca jamono waxoon naa ni xalifa Sall mën na doon candidat waaye loolu ñu neenaloon ko tey ci affaire grâce bi ñuy tudd nee nañu procédure bi maanaam ni yoon di doxe sotteegul fekk loolu sotteegul grâce mënula am mbokk yi yegg si nañ ci càppaandaw uh, xibaaru maraxi yi juróom-ñetti waxtu Chérif Diop uh, dina fi teew tënkal leen xibaar yi ci nasaraan di leen jaajëfal ci teew lu beek safo bi dina ñaanal ndogu jàmm.